तेरे قد كان عليا مس الحرير ويا فمسك مزدنا يا رب صل رسائل دائمين على مصطفى ينزل حقيقة أكرم بجذي هيبة نسيت قسورة جلالة أدهشت أهل الجلالة أنا صرت بس عبد الله خنا نيو نيو في حج عبد الله سباي بنينا أكرم بذي هيبة ينسيك قسورة جلالة أدهشت أهل الجلالة سانغي بيتي راود بينينا أكرم بمن تم معناه وصورته وأكرم الخلق من ماض ومن آه الحاج عباس نينا أكرم به من جواد طلوا بله عم الخلائق من إنس wajitnaa si dundal dundal sëñ Abdallah dundal yaa waral bis bi ci Louga ñu ngi lay ziyaare dundal dundal amiin salama yoroo yaa waral bis bi ci Louga lay ziyaare dundal dundal sëñ Abdala dundal yaa waral bés bi ci biralo ñoo ngi lay ziyaare dundal dundal ndeysaan jigéen maam faama sall bés bi ci biralo دندل دندل سن عبدنا دندل يا ورا البسبيت الوان يوم ليزي امين اوه لا لا لا يا ولد البسبيت الوان يوم ليزي waay dundal dundal sëñ Abdala dundal yaa waral bés bi ci Louga ñoom lay ziyaar dundal dundal amiin sëñ Abdala yaa waral bés bi ci Louga ñoom lay ziyaar mbokk yaa ngi fi ak say soppe ak say dëkkaale ñoom lay ziyaare dundal dundal salama ya rabbana yéen matul ba andar yaa wale bisbi ci Louga loo ñoom lay ziyaare mbokk yaa ngi fi ak say soppe ak say dëkkaale ñoo ngi lay ziyaare amiin loxo ca kaw la bés bi ci dugaloo yàlla la bur yàlla gërëm la sidina Muhammad sëñ Abdallah bur yàlla gërëm na la ak ko amiin loxo ca kaw sabaay gërëm naa la Serigne Abbas gërëm naa la yaay Rama Jaañ gërëm naa la

Yeah. wallaay ak say soppe ak say soppe jakaale ñoom lay ziyaare amiin waa demal li ma lekk nay ndeysaan yaa war a gis سني عباس قرمنا لا قرمنا لا خيلنا لا قنطلنا لا خيلنا لا قلنا الامين لا لا لا يا ولد بسيتي سي منصور قرمنا la waaw sama gërëm naa la sëñ Mansour gërëm naa la waaw sama gërëm naa la sëñ Ahmed Sall gërëm naa la waaw sama gërëm naa la sëñ Moustapha gërëm naa la waaw sama gërëm naa la Lamine Diarra gërëm naa la waaw sa xarit gërëm naa la Moustapha Diop bopp garam naa la waaw sa xarit gërëm naa la doode doode garam naa la waa jotaay bi gërëm naa la waa jotaay bi gërëm naa la waa askaay gërëm naa la soxna joosi gërëm naa la waaw sa xarit gërëm naa la selil set gërëm nan la borom si xarit gërëm nan la silin daaru gërëm nan la borom si xarit gërëm nan la Ahmadu Mbay gërëm na la borom si xarit gërëm na la liman caam gërëm na la waaw sa xarit gërëm na la sëñ Abbas Wadd gërëm na la waaw sa xarit gërëm na la sëñ Abbas Wadd gërëm na la waaw sa xarit gërëm na la xëyal nañ la gontal nañ la fu ne ci réew mi soxna Ndeye Fatou soxna Rama Ndiaye bis bi ci Louga ngi lay ziyaare yaa zali jalaali wa إكرامنا مهيمنا هذا العفو واللطف وغفراني حبتنا وانتقينا بكؤوس حب ولا من بحر أحبابنا تجاري الله الطف بنا عنا واستر أبدا واقبل بضاجنا مسجد يا محمد والد mbooloo mi bu ko defee ñun ñépp nañu àndandoo teewlu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 لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار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 ci baatu baat bi ñu yàlla jox muy baatu assalaamu aleykum wa rahmatullah yàlla na jàmm ju bari wàcc ci seen kaw wàcc ci suñu kaw ñu teg ca baatub alhamdulillahi rabbil alamin sant yàlla ci xéewal gi mu ñu defal te moo di xéewaluk lislaam mooy xéewaluk imaan mooy xéewaluk ixsaan mooy xéewaluk yaram mooy xéewaluk jàmm moo tax baatub rabbil alamina dafa war di nekk heure bu nekk moo tax faatiha foor moo tax sëriñ Abbas Sall fonkoon faatiha daan ko def lu fii juróom-ñaari junni weer wu nekk ba benn bis mu ne alxaaji mujib jóob radiyallahu taala anhu man daal alxamdu lay dund kon ñun ñëpp war nañoo àndandoo wax baatub alhamdulilahi rabbil aalamiina alhamdulilahi rabbil aalamiin alhamdulilahi rabbil aalamiin alhamdulilahi rabbil aalamiin ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni xéewal gii ñu am ci yàlla ci moom la jóge kon nag suñu cant ci moom kon suñu cant ci moom mooy ñu julli ci moom waaye ñu delluwaat nag ñu delluwaat nag ñaanal yàlla di ñaanal yàlla dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla julli ci yonent bi julli ci yonent bi ñaanal suñu sëriñ suñu sëriñ suñu sëriñ boobu mooy kan suñu sëriñ boobu mooy kan radiyallahu mooy abul abbaasi ahmada tijaani kooku mooy suñu sëriñ ñun ñépp kooku nag dañu koy ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko ca aljana ya gën yaa kawe yàlla sotti ngërëmam ci moom waaye tamit ñu gërëm ki nga xam ni moo tax ñu xam seexana ahmada tijaani di suñ suñu sëriñ di suñu baay mooy sëriñ Abbas Sall radiyallahu taala anhu di nuyu nag mbooloo mi ñëpp di amit mbégte mu yaatu moo xam ne gëj nañu ko am waaye nag bu ñu nuyu mbooloo mi daf koy nuyu ci turu njabootuk alxaaji mujib jóob ci turu xalifaam alxaaji Alioune Diop kon mbooloo mi yëpp mi ngi leen di seedeel ni alxaaji Alioune Diop ak njabootuk alxaaji Mujib Diop yëpp ñu ngi àndandoo di leen wax jërë ngeen jëf waaye mi ngi leen di nuyu itam ci turu suñu baay suñu xarit suñu soppe sëriñ Seex Ahmada Tijaani Sall ci turu ki nga xam ni mooy xalifaam mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Sall Tëngéej mii kon mi ngi leen di nuyu ci seen tur yéen ñépp nee na wax dëgg yàlla ndaje tey bii de yàlla moo ko taaral ndax alxaaji ngom mi ngi fi di suñu maam alxaaji Baay Jóob mii toog alxaaji Rawxaan moo jur yaayam te taxawaayam yaatu lool ci paal lool ci mu ne loolu mbégte mu rëy la ci ñun boo dellu siwaatee da ngay gis imaam Xalifa Jóob nekk ku am taxawaay ci ngaay ca imaam ya ca daara ya kon moom buñ ko tuddee tudd nañu waa Ngaay yépp waaye tamit di tudd délégation bi jóge Ndar ñu ngi kontaan ci seen teewaay nee na du tudd nag délégation bi bu ñu demee ba ca fin ba nag dinañu tudd délégation yépp waaye bu ñu tuddee suñu mag soxna maam Fama Aïcha tudd nañu mboolem njabootuk sëriñ Abbas Sall ndax fi ñu nekk di dund nii yaakaar naa ni maam fa soxna maam faama Aïcha mooy suñu mag ñun njabootuk sëriñ Abbas yépp kon moom bu ñu ko tuddee tudd nañu njabootuk sëriñ Abbas Sall yépp bi nag dafa wax ni thème bi mooy sëriñ Abbas ak tawxiid nan la gisee woon tawxiid sëriñ Abbas ak kóllëre alhamdulilah waaye nag lu tax mu tànn ñaar ñii tey li tax mu tànn leen ñoom dañoo bokk ci sëriñ Abbas li tax mu yéex leen a tudde itam yàgg laa doon jël. dafa bàyyi ñi génn àdduna ñi gën a yàgg la doon jël. mais fekkoon woon priorité la. bu fekkonte ni périorité rek la. kon ñoom ñi ci ñi ñuy njëkk a tudde bis ci la ñuy bokk. ndax su ñu suñu waajur alxaaji Mujib Diop mooy fondateuru siyaar bii. keroog bi mu ko xalaatee. ñan laa àndal. alxaaji Góora Mbaw. alxaaji Mayoro Fall. ñoo ànd dem ca alxaaji Mujib Jóob mu wax ko xalaat bi ni ko papa ni ko papa man dama am lu ma xalaat gis naa ni sëriñ Abbas Sall am na lu ñuy wax ngiig ziyaara la ñépp a ko bokk gis naa ni am na gàmm sallallahu alayhi wa sallam moo moom gàmmoom gis naa ni am na xatmiya ca Dakar Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu moo ko moom gis naa laylatul xadar loolu guddi gi moo ko moom man ma am xalaat wutal ko bis boo xam ni bisam la ak ay soppeem nee na alxaaji mujib joom ni ma lii dey rafet na fa rafet yam tey comme sëriñ alxaaji mujib nitu baatin la mu ne ma may ma feeg ñaari semaine dinaa la woo nee na góor gi alxaaji mujib jóob ku yéeme la mu ne am na ku gaañu woon ci Kaolack muy sëriñ Abdou Khader Kebe nekkoon frère ci alxaaji Njugo Kebe euh, alxaaji mujib jóob dem fa dem tase fa ak alxaaji Moustapha Ñang mu nuyu ko rek ni ko yaakaar noonu ne sëriñ Abbas xamoon na ni daanu daje. nee na ma. bërki démb nee na ma. waxal Moustapha Niang. waxal ma daan defal. dog ba ma daan defal. semaine bii defu. semaine bii passé defu. Moustapha Niang ni ko man nag tey tey nag damaa damaa bu Kaolack ni ko man dey daanaa jommi waaye tey nag moom damaa rakkatiku. moo tax sëriñ Abbas naka la tuddee woon alxaaji mujjib xefrit léegi nag moo toog ñaari semaine mu toog ñaari semaine euh, ni naa ko seeti ni naa ko seeti mu agsi rek mu ni ko man dey maa ngi la doon sax bëgg yónnee ndaw alxaaji mujjib ni ko gis naa sëriñ Abbas mu ni ko aw ma mbégte mu gën a kawe bis bii nga ma jox bis bii nga ma jox boole ko ak samay soppe mu ne xoolal loolu moo tax ren jii kii ñu ko tuddee bisam la at yu jëkk yépp moom moo ko daan présider moom sel kilifa moo ko daan présider tey ren la mat ñaar fukki at ah, kenn ku ne xam na ni alhamdulilah yokkute mi ngi ci am baay Cheikh Sall nag. suñu baay Cheikh Tidiane Sall. suñu baay la woon moom suñu baay la woon. ak doomam ju tedd ji doomam ju tedd ji. di Serigne Mouhamadou Lamine Sall Tëngéej. yërëmoon naa ko sax ci ñëw bi nee na yërëmoon naa ko sax ci ñëw bi. ndax ñun lii dafa jege ndax bis bi dafa jege ak ngiig. bëgg ñëw fii ñëw ngiig. bëgg ñëw fii ba pare dem ngiig. yàlla xam na ni nee na mi ngi la ci doon yërëm. wante mbiru yàlla euh, nag. da nga war rek di nangoo sonn. serigne abbas daf daan wax ku ci ñemewul a sonn la nga bëgg doo ko am pap cheikh tidiane sall nekkoon rakku serigne abbas nekkoon mu serigne abbas nekkoon it soppe serigne abbas mom pap cheikh ci boppam moma netti ni mohammed abdallah xam nga nan la ñëwé dakar gii mu ni ko benn bis. mu ni sëñ xaali nekk ci wetu sëñ Abbas. mu ni ni sëriñ xaali nekk ci wetu sëriñ Abbas. noonu laa war a nekk ci wetam. noonu laa war a nekk ci wetu sëriñ Abbas. benn bis mu woo ma mu ñëw. benn bis mu woo ko mu ñëw. mu ni ko sëriñ bi dafa am fu ma lay yónni. ginnaaw suba. na nga ñëw. indaale sa walis. ma ne ah sëñ Abbas de xanaa kon Casamance la may bëgg a yónni. mu ni ma indaaleel sa walis ak sa yére. ma ni kon xam naa ne dama faa nar a yàgg nee na ma ñëw mu jox ma benn lettre ni ma dama lay yónni ci alxaaji tafsir Diouf boo demee nga jox ko lettre bi ah, ma ne ah waxi kilifa day topp ndigal rek waaye dem ci alxaaji tafsir rek yónnentub lettre yóbbaale sama walis ma ñëw jox alxaaji tafsir lettre bi mu jàng lettre bi ni ma sa mag ji sëriñ Abbas nee na moom moo la waroon a jàngal te jotam mayetu ko ko nee na dafa bëgg nga toog fii ma jàngal la mu ne waaye xool leen lii mu ne kon sëriñ Cheikh Mouhamad Lamine bis baa ngi noonu bis bii seen bis la tabaarakallah kon sëriñ bi nee na day yemale foofu rek kàddoom wante ay kilifa yu mag ñu ngi fi bu ñu demee ba ñi war a wax wax wax nañu programme bi ni mu tëddee ñoom kenn ku ci nekk dina ñu la may cinq minutes mbaa dix ku mel ni imaam Thiam bu ndar mi ngi fi boroom xam-xam la Cheikh Ibrahima Diop mi ngi fi boroom xam-xam la cheikh cheikh Bey mi ngi fi. Mm, cheikh Bey bu Touba mi ngi fi borom xam-xam la. te cheikh Bey bu Touba dafa gëstu ci sëriñ Abbas. te xam gi mu xamanteeg moom rek. ñuy daje ca màggal ga. muy wax ci sëriñ Abbas. moom cheikh Bey di noté rek. kon ñooñu. ak ñeneen. bu bu ñu paree nag. ñoom ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk sànni benn kàddu bu wax na nag ni bu sañoon kàddu yi kenn ku nekk war na yéene ñaan wala booy tëj yàlla nasaxal Israël ak képp ku koy dimbali yàlla na yàlla dimbali Palestine ak képp ku leen di dimbali sëriñ bi nee na foofu la yem ci kàddu yi. incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah ci biir kàddu gi bi ngay yëkkati kàddu sëriñ Papa Diop bu kër alxaaji mujib eh, di xalifa bi moom it tamit toogal fi xalifa bi nañ ko doon waxee sëñ Cheikh Oumar mu ñëw nga xam ni moom fu rakkam ji jëm sëñ aliin moo ko fa yebal moom it bi rakkam ak see ànd ak i bokkam moom sëñ Pape Diop ñëw ne mi ngi nii toog sëñ Pape Sidi Fall bu sëñ Baye Moustapha Fall moom it aksina legi léegi ci biir kàddu yi bi ngay wax kon sëriñ bi nee na ñu continuer rek programme bi ñu jox sëñ si Ahmed Tidiane Sarr kàddu gi bu ko defee mu duggal ñu ci sëriñ Abbas ak tawhid bismillah kàddu gaa ngi Sarr sayyidina muhammadin alfaatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di nuyu Eh, di leen baalu xaq di leen ndokkeel ci jataay bi di jël ci nuyoo bi kilifa gi sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sall mi ne ci biir te egseegul di ci teg suñ nijaay eh, sëñ Abdoulaye Sall di ko ndokkeel ci ziar bi di ko ñaanal yàlla ko yàlla dëgëral yàlla ko yàlla may gudd fan ak i rakkam ki magam ak mbooleem ñi aju ci abbas yalla defal jamu julit ñi ñi ni nga ko waxe banu israël pexé yi ñi def yalla nako yalla yàlla nasaxal delo ko seen kaw te yalla dimbali wa Palestine ak kep ku leen jappal ko ni nga ko waxe amin ya rabbal alamin eh, di lu jotaay bi lool nak ndax jotaay bi duñ ko tuddé ko xamni sa mbokk la di alhaji Mujib jóob Euh, ak suñ ak sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sall te doom ji bu ma neexee ni sama mag la bu ma neexee sama nijaay la sëñ Lamine Sall e, jataay bi nag dafa alaa dawame ñu ko waxkat yi di waxee ndax alaaji mujub e, mooy sëñ xaali ndax xaritoo ga ñu xaritoo mu nekk it sëñ Abbas di magam ni sëñ xaali nekk rakku sëñ Abbas noonu la nekk rakkam daan ko doxal daan wax ci moom lu baree baree bare daan fekk ay jotaay yu bay mu wax ci sëñ Abbas kon ñuy kontaan lool ci jotaay bi sëñ Cheikh ñu lay ziar bu baax di nuyu waa kër gi sëñ Alioune Diop mi nga xam ne moo jiite jataay bi ak ci e, kilifteefu sëñ Pape Diop mi nga xam ni mooy xalifa kër ga. ànd ak seen mbokk yu e, baax yi sëñ Mbaye Kebe ak xale yi ñoom ñëpp ñu di nuyu tabarakalla sëñ xaali boo ko daan bu la daan may werd dafa naan maa ngi mayel sëñ Abbas werd loolu la daan wax waaw moo tax ñu naan seyxu seyxuka seyxu seyxika huwa seyxuka mi mi abil mi a ku sëñ abba sëñ xaal ji sa sëriñ abba abbas mooy sa sëriñ cent pour abbas nak radiallahu anhu ak tawhid tawhid ñetti degeere la ci diine dafa am martab bu ñu wax martabatul islam moy ñi nga xamni ndax tawhid kenn du nangu ni gëm nga yalla te wo ci firnde ñi nga xam ne nag seen firnde mooy firndey xel lu am am na lu ko amal loolu kenn doxul doxu gu toll ni gis asamaan si gis suuf si te xamoo ni wër ne lii dañ ko dañ ko fi indi te amul ko ko def kon lu ñu def am na ku ko def loolu mooy tegtalu ñi nga xam ne si ñooy ahlul islaam mooy ñu toll ci martabatul islaam ñi nga xam ni nag seen tegtal paase na foofu ñu tudd leen martabatu ahlul imaan mooy ñi nga xam ni ñi ngi tegtaloo ci turu yàlla yi ak melokaanu yàlla yi li am turu yàlla yi moo ko def moo tax boo demee ci ibnu ataillah day wax ni dalla ala wujudihi atharuhu ودل أثره على أسمائه ودل أسمائه بثبوت صفاته ودل صفاته بوجود ذاته موي نيغا خاني داي لي ام تور يالله اك ملوكان يالله اما اك نيغا خاني نك نيوم نيغي تكتلو سي يالله سي بوبام لي ام كو امال maanaam suñu borom leeru suñu borom ci boppam leeram mooy li am moo amal li am muy martaba ba nag ñu martabatu ahlul ihsaan mooy ñooy ñitti yàlla yi nga xam ni seen tegtal ci tawxiid du lu ñuy dégg luñ mos la luñ jàkkaarloo la sëñ Abbas nag ca ñooñu la bokk euh, waxuma xaaj yi ñuy xaaj tawxiid naan tawxiidu rububiya tawxidul uluhiya tawxidul asmaa wa sifaati xaaj yooyu ahlu sunna xamu ko loolu bidaa la boo xam ni ibnu taymiya moo ko fi indi ndax bëgg tawxid yàlla kenn la amatul xaaj waxada yu waxidu tawxidan fa huwa muwaxidun nga bëgg koo xaajaat def nga musiba moo tax ana benn borom xam-xam bind bind ak tandiid fii man addada tawxid fenloo ñi nga xam ni danoo ñëw jël tawhid di ko def ay xaaj ndax tawhid ci ngi islaam amul ngir tawhid nanguwul ngir ni mu amee nga am nga bokk ci mazhabu maliki shafi ki ahmad loolu ci islaam la la baax mais ci yàlla nag yàlla amul amul ngir bu dee ci tasawuf tarixa yi bari na lool ay yu bari la waaye nag ci wàllu tawxid nag benn ngir képp moo baax mooy ahlu sunna wal mooy leen di waxoon maa ana alayhi wa ashaabi la man li ma nekk ma maag sama gaay yi e, loolu nag wuute nag maanaam jël taw xam nga ñooy wax ju wax ji ñuy wax sëñ Cheikh Ahmad Tidiane bind ci ci benn téere mu tudde laa na wax ci wax yu am solo di wax maanaam réeri ñiy jël taw tawhid du ko def xaaj yooyu ndax kat ñom seen wax da nga gis ñu ñu leen la firawna amona tawhid abu jahlin amona tawhid tawhid rububiyya la amon loolu deug xam nga lan moy tawhid moy nga ni ben bour la am di ko jaam léegi telo te loolu liñ ci jublu ñom moy pour daganal dereeti julit ñi pour man leena ray day fekk kuy wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu sukkandiku ci wax joju pour daganal dereetam te waxaab yi ne rey nañ ci ñu bari ci wax ci ci tëralin woowu e, ndax loolu boo jëlee ji wax ji li ñu wax ñoom boo ko jëlee ni mu nekkee neen fan la Firawna amee tawhid na benn borom la amoon na xam maanaam ndax nee na boo waxee ni walla in saaltahum man xalaqa samawaati wal ard la yaquluna allah loolu du tawhid de loolu affaire xel la loolu loolu ku ku xamul loolu amatoo xel. kenn warut a wax ak yow loolu du affaire tawxid firawna xam nga lan mooy tawxid ku gëm laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah firawna amul musta am tawxid firawna yéeféer bu bon la na xam na ni yàlla moo bind asamaan xam na ni yàlla moo bind suuf xam na ni yàlla ko bind waaye est-ce que lool ca la yemoon moom est-ce que moom lool rek la wa firawna moom dafa ne man man yàlla laa la wax moom kon firawna bokkaalekat bu mag la abu jahlin pour wax la damaa bëgg wax rek pour wane wax jooju ni mu nekk neen rek abu jëhlin nga ni abu jëhlin amoon na tawxiidu rububiya ndax boo ko laajee ku bind asamaan yi mun yàlla boo ko laajee ku la bind mu ñu yàlla abu jëhlin mi nga xam ni xam na loolu dëgg la waaye nag abu jëhlin daa sampoon ab xërëm di ko jàmm abu jëhlin nanguwu la topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax gënuta ñaaw gënuta nekk ak réer jël tawxid di ko def ñetti xaaj rububiya am na ñoom fi ñu juume ci baatu tawxid lañ juumee rububiya am na uluhiya am na asma wa am na waaye nag jël tawxid di ko def xaaj yooyu nag loolu mooy réer bi nga xam ne ahlu sunna xamuñu ko léeg-léeg sax nga gis ku jël waxi sëñ abbas di ko firee loolu sëñ abbas mus ta wax lu jëm ci lool waaw nag euh, yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax benn wax boo xam ni ni lepp lu ñew ci sa xet rek du yalla ñu ñu wax jooju nak xawna ndar kep tawhid yeb lepp lu ñew ci sa xel du yalla lepp loy tek bët du yalla yalla xalaat mënu ko xam kenn mënu jener jeneer e, suñu borom suñu abbas ni manam wétal bu wóor jëmm ja wéetal melo ya te wéetali jëfe te màggal sole ya mooy wéetal yàlla ci jëmmam ni yàlla kenn la lenn la yàlla kenn la lenn la xul huwallaahu ahad kenn ku nekk fépp loolu mooy ahad mooy ku daj fépp kenn ku nekk fépp waaye yàlla lenn la yàlla kenn du jëmmam du tarkiib moo tax kenn du xalaat ci yàlla lépp bépp melokaan ci yàlla kenn du ci xalaat moo bu ne rahman al arsi stawa bo amé tawhid do do ci am problème do laaj do soxla ku lako firil ndax da ngay xamni yalla ay melakanam sosul sosuwul moo nit yalla di wax ni allahu suñ borom moo eh, istawa Al-Arsi istiwau suñu borom lolu melokal la ci yalla wo xamni jitu no na aras maam yàlla ba istiwa def istiwa ci aras bu bindugul aras xam lolu wax ju wax ju kawé la motax ma déparé ci tawhid ñetti yi allahu stawa al arshi khabla an al arsha kon kay li gaay di wax mom waxi dof mo sa abbas ni lolu waxi dof la nan yalla nga kaw aras nee lolu maqalatul majani la lolu waxi dof la moo tax ñu wax ni képp koo xam ni ñu ngi ñuy sëñ bi waaw kon ñu dugg ci tembil sëñ Abbas radiallahu anhu li mu wax ci benn bunt boo xam ni ci téere boobu mu tuddee dalilu saar yi di ci résumé ci tawxiid ci ñetti étape yi ma wax tawxiidul mubtadiin wa tawxiidul mutawassitin wa tawxiidul aarifin muy wax nak suñu borom jëmmam euh, nuro nuróowul ak dara laysa ka misli shay waye dara it nuro ko suñu borom tamit yalla xam ko moy kenn mënu ko pek wala wala yuhitu ahadun bihi ilman amul kenn ku mën pek yalla motax xam yalla biñuy wax ci nitu yalla yi moy nga xamni ni ko xam loolu mooy xam yàlla xam yàlla nga xamni ni nga ci xam ko al ajzu an darkil idrak idrak suñ bo wax sëñ abbas nak di wax ci yàlla ni fa allah lam yakul lahu ibtidaau wala yura akhiru hin axiru hinqidaau lam yalit wa lam yakul mawluda bal bil waxiidi samadul samadal maabuda فليس بالعرض ولا بالجوهر ولا بجسم ولا مصور ولا بأجزاء ولا مركب ولا بطول كل ذا له أبي نانا سن بروم تي بوبام يالا موي كي امول نجالبين كو امول نجالبين لول تي موم اكسبريسيون بوبو موم لا تي ساف دي واخ نان الازليو موي كو امول نجالبين ولا يرى اخره انقضاء مانام mu jëm tamit amul fu mu yam moom lay wax al abadiyu ki nga xam ne sii mu jëm amul fu mu yam amul maanaam ak ñàkk du ko dab euh, mooy ki nga xam ni kenn juru ko te jurul kenn te kenn juru ko muy xulallaahu ahad waaye moom mooy ki wéet te ñépp jublu ko di ko jaamu moo tax dafa am jaamu goo xam ni kenn du ci fay kenn loolu noteel la suñ borom la bi bi mu not mboolem mbindeef yi ñuy soxla yàlla ñépp soxla yàlla ci jamono bu ne moo tax im ibnu ataayilaa di wax ni nit koo gis xaal bu mu mën a toll xaalu ñaan la toll ndax sa nokk yi di ñëw nekkul ci sa loxo te soxla nga bu dugg benn génn te loolu nekkul ci yow soxla nga la yàlla dellusiwaat ko kon yaa ngi ñaan doonte waxo ci sàmmin maa ngi ñaan yàlla nekkul lu gaar yàlla gaarul moo tax dara du mënu ko gaar yàlla dara mënu koo gaar mooy mooy moo tax bokkuñ ci tur yàlla asalaam assalaam mooy ku mucc ci gaar-gaar ku mucc ci wàññeeku wàññeeku mooy ki nga xam ni kenn mënta egg ci lor ko kenn mënta egg ci ja jariñ ko suñu borom kenn du ko melal naan mooy yàlla du jëwhër kenn du ko melal ci yaram euh, kenn du ko jël di ko jox melokaanu mbindéef nekkul koo xam ne si dafa am ay cër nekkul ku ñu toggale maanaam ay jëmm ji nekk lu ñu toggale jëmm nit dañ koo toggale nit dafa am jëm am ruu am xol am ay loxo gi ci yàlla nag moom du du lool yàlla lenn la lu kenn xamul te loo xam ne kenn mënu ko xam te kenn du ko xam kenn du ko melal ci gudd yàlla kenn du ko melal ci mboolem lu ñuy melal mbindeef yi kenn du ko ci melal yàlla kenn du ni yàllaa ngi ci kaw wala mu ngi ci wàll sàngam wala mi ngi ci penk wala mi ngi ci soow déedéet kenn du ni yàlla day toxu wala day yéeg a ko wàcc wala day dugg ko génn kenn du xalaat ci jëmm ja ba koy xalaataat naan jëmm ja day yëngu wala dafa dal wala dafa dëgër wala dafa nooy wala dafa ratax wala dafa ñagas yooyu kenn du xalaat ci yàlla ndax yàlla yëpp du lool te yow yow lool mooy li nga xam yow moo tax suñ boroom a ngi fépp Cheikh Fuuti wax ne wa bil uluhiyati bil azmaani wa bil maayati bila makkaani yàllaa ngi fépp te do waaye bul nag ci barab bii la ne ndax yàlla taqaloowul ak dara waaye teqaleekuwul ak dara xam nga doomu aadama li xam ku nekk ci barab benn mu taqaloog barab bi wala mu teqaloog barab bi mu am distance yàlla nag moom kenn du xalaat lool li ngay wax mooy li nga munta xam lan mooy ku teqaleekoowul taqaloowul loolu mënoo ko xam yàlla nga kaw aras yàlla ngi fépp ci jëmmam ndax eh, ñi naan yàlla ngi fépp mu nga ca kaw waaye loolu kufru la ku gëm ni yàlla ma nga kaw xama waa gaa yi xamuñu sax luy aras xama aras nitu yàlla képp ñoo ko xam ko wax gaa yi luy aras la mooy aras xamul luy aras lan moy aras ku defe ni aras ab néeg la bu nek ci kaw xamul li aras aras mooy mbindeef mi gëna reuy ci li yàlla bind te lu yàlla bind da ko wër comme ni xolati nen wër nen aras aras c'est inimaginable manam aras ken mënu ko xalat xajul ci xel mam aras rek mbindeef la mu xajul ci xel dafa dépasser xel maa waraa a tawril xija wa kon nak ngay xalaat ci bind aras mom motax tax ñu ne xaqiqatul mari laysal maru yudrikuhu fa kayfa al jabbar fi fil khidam. bu fekke yow xamoo sa bop yow bu leen ana nga ay ngay wane mangni ngi ngi rek ay loxok ay bop ak lool lay wax waaye ana nga li tax naan yow mi yow anam bo kudundu ku dundu ak ku faatu ci ngoy xam différence bi mënoo ko gis li tax nit naan mana lolu moy haqiqa nit nit nak lot na ci ci xam lool kon nak nak ngay xamé ki def haqiqa bo ma ki wax ni al ajzu an dark al idrak idrak lot gi nga lot ni mënoo ko xam lool moy jëmmi xam ko motax seigne Abbas wax ni wala bi ardin laa muxassisil makaani duuna makaani da maqaalatal majaani yàlla kenn du ko jagleel benn barab naan ma nga ceg penku beek wala ma nga soow wala ma nga kaw asamaan wala kursi yu ara ak kursi yu ak yooyu nga gis muy suuf si ay mbindeef la ñoo fa ne malaul aala ñun ñun ñàkkee gis yàlla ñoom it ñoon lañ ko yàkk gise moo tax yéen saa sa malaul ala tatlubuunahu kama tatlubuunahu antu suñ boroom mi ngi ci bépp barab waaye nag ci lu dul naka wala ci lu dul ay na moo tax ñaari laaj kenn du ko laajee yàlla yàlla naka la naka la kenn du ko laajee kayfa de kenn ay na kenn du ko laajee yàlla dafa am benn waaye bu ñëw ci Seydina alin ni ko ay na laahu mu ne ko ay na tuwajjahu ila makaanin wa kaana allaahu wala makaana wa huwa ala makaana yàlla kay baatu ay na ana kenn du ko laaj yàlla ndax ana boo ko waxee da ngay tudd barab te yàlla ba muy ba muy am booba barab amagul te yàlla na meloon ba dara amul ba léegi noonu la mel yàlla du soppeeku yàlla du soppeeku maanaam li am sax boo ko xoolee sax dëgg-dëgg ci kanamu amug yàlla daanaka mooy lu amul rek nit moo tax nit yaa di wax ni maanaam existence su mbindeef yi ci kanamu existence su yàlla mi ngi mel ne existence su amug takk ndeer ci jëm takk ndeer ndax am na ah da nga naan am na waaye amul xaqiqatan boo ko xoolee da daan amul waaye nag boo ko xoolee mi ngi nii am na. léegi nag kon nag kooku eh, moo tax sëñ Abbas xam nga ku yéeme la dafa wax ni ñi wax ni yàlla mi ngi ci barab waxul benn barab moom moo boo ne yàlla leen kursi wala nga yàlla nga aras wala mi ngi ci asamaan sàngam wala mu ngi ci suuf sàngam wala mi ngi ci penk wala sow sëñ Abbas ne loolu waxi dof la mas naa ko laaj benn waay ñuy def benn débat mu naan yàlla nga aras yàllaa ko wax ma ne ko yow yaa ko wax waaye yàlla waxu ko mu ne arrahmaanu ala asistawa yàlla moo wax ar ma ne ko arrahmaanu ak allahu bokkuñu arrahmaanu melokaan la ci allahu waaye du allahu te melokaanu yàlla yi ak yàlla bokkuñu waaye du leneen tamit melokaanu yàlla ji du jëmm yàlla ji waaye du leneen waaye nag ni jëmm yàlla ji mel la mel mooy sosuwul ma ne ko waaw léegi aras moom lan moo ko téye ba daanuwul mu ni yàlla waaw léegi yàlla moom naka lay téere aras ba daanu aras wëlbéki di ko téyewaat loolu du waxe dof alxayul xayum moo tax ñu ne yoon wi gën a gaaw ci ñu accéléré la nga am tawhid ci saas ci benn bis wala ñetti fan moo ñu jàngale tur yi firil la ko yàlla mooy alxayu alxayu mooy kiy dund dëgg dëgg dëgg kuy dund moo la maas ci ak dundam alxayumu moy ki taxaw ci bopam yalla moy ki taxaw ci bopam yow minef da nga am ci lo taxaw da nga nek ci barab ni yaa ngi taxaw ci barab sangam da nga nek ci barab sangam yalla nak mom mom moy ki taxaw ci bopam koko nak boo nak nag yàlla dégg nga dafa mi ngi ci kaw barab legi yow weddi nga melokan wo kon ne nga yalla dafa soxla barab te yàlla soxlawul barab mbindeef yi seen fi ak ñak fek ci yalla ben la amul différence te euh yàlla al khayyum ki taxawé lépp moo tax xayuum ñaari fir la am moy yàlla dafa mo taxaw ci bopam soxlawul dara waye tamit mo taxawé lépp hayyul khayyum kon ma daanel kon mo la si Abbas wax ne kon ni bal huwa fi kulli makanin kana bila takayufin wa ay nag mi ci bépp barab ci lu dul naka la waaye nag du jaage ne da naan dafa teqali moom wala dafa taqooku moom subhaana jaaxili sabila al maarifa waaw foofu lay daane la ilayhi xayraanan wa ajizan ardafa xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sahbi wa man walaahu falaa tufadilu yaa ashaabi ala bni maata yunus awaahi e, masala moom laay jeexale si abbas fay indi yon sa dafa ne la tufaddilu la tufaddiluni ala ibn yunus yu ala yunus ibn mata yunus bayam mata la tuddu yonte ala yunus yonte bi sa sa wax ni bama rañane ba jeggi asmani dem ba ci sidratul muntaha ba passé ko gënuma gënuma jégué yalla yonte yalla yunus ma nekkon ci biiru jënwa jënwa benen jënwa wal ko mu nekk ci biir gën ma koo jege yàlla ndax diggante yàlla ak mbindeef yi distance amut ci loolu la sëñ Abbas wax loolu nag lu gudd la euh, taam yi mayewul ñu continuer ko su ko defee ñu taxaw noonu euh, di ñaan yàlla defal ñu ñu am tawxiid bu wér euh, yoon saa sax ne fu ngeen toll ni ngeen di beesal seen ngëm ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tawxiid nag moo lay tojal loolu wa laa ilaha illallahu محمد أرسله أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني لذا كانت علامة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله